jàppee le présumé meurtrier de Aziz Dabala ak Wali waaye ko tudd Mouhamed Lamine Diaw sa réaction euh, gannaaw ba nga déggee nag jàpp na ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Lamine Diaw di àdduna maa sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla na am jàmm di santaat ci yàlla bu baax di sant yàlla jul ci yonent bi di sant Serigne Touba Xadim Rasul euh, tey ngeen fekk ma fii ci pencum pencum janatu Maxwa bu Serigne Béthio waaye itam bu euh, Serigne Saliou Ndigal Thioune yaakaar naa barki démb jël ngeen ma fii ci penc mi fi ngeen ma jëlewaat ma wax ne ki nga xam ne moo boom Abdou Aziz Dabala ak ki nga xam ne mooy frère bi muy boom boo xam ne ñaaw na trop Sénégal yi adduna yëpp teg seen bët du Sénégal rek moo ñàkk adduna moo ñàkk parce que reen bi moo ñaaw yaakaar naa xar wala béy wala ginaar sax duñ ko reyee nii muy rey boo xam ne adduna képp ku nit ku ñuul nit ku xonq rek métti lu nga ko parce que doomu aadama la waaye ma waxoon keroog fii interview bi amaat ma bàyyi ma fen ma ne maa ngi ñaan ci barke Serigne Touba ci barke Khadim Rasoul ci barke 18 safar parce que Serigne Touba moo am 18 safar ñëw leen sant le suñu borom euh, ñëpp war a sant suñu borom ñaa nit ñëw di def ay ñaawteef yaakaar naa ci weer boo xam ne weeru Serigne Touba la ñuy wax parce que dama toog keroog ne balaa màggal ga jeex ci barke Serigne Touba ci barke Xaadim Rasool yal na yàlla suñu borom nit ki nga xam ne moo faat Abdou Aziz ak képp ku ci laale fii laa koy waxaan janetu fii lañ fii laa ko yëgee waat encore may santaat Serigne Touba xam ne Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am parce que tey bësam bii képp ku ci def lu ñaaw rek moo xam tey la moo xam suba la incha allah dina feeñ waaye nag dañuy santaat yàlla parce que Abdou Aziz àdduna ñàkk ñun ñëpp ñoo ñàkk may wax ne tey képp koo xam ne ñëw nga Touba muy kilifa diine wala kilifa aada wala ndaw rek tey màggal si nga mais sa xel yëpp fan la dem ci Abdou Aziz parce que niñ ko faate tey da ngay xool bu doon sa rakk la tey wala tey bu doon sa mag la wala ko bokkal tey ne Abdou Aziz ñoo bokk ak moom parce que ñoo bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy lu metti waaye li may waxaat rek toujours damay lancer waat nguur gi vraiment aussi ñu xoolaat bu baax a baax saytuwaat bu baax a baax réew mi euh, vraiment réew mi euh, kenn amatul jàmm kenn amatul euh, maanaam fit sécurité parce que da ngay dugg sa ñun ñëpp ay appartement lañ yor man mi appartement laa yor man kese sema dëkk keneen ak keneen ak kon vraiment kon war nañu xool bu baax a baax te ndaw ñi ni ñuy reyantee metti na du ay xar sax du ñu rey nii gis nit day jà jàqaroog nit rey ko ren di fàttit mu dem ñu bàyyi noonu tëj ko ay six ay un an deux ans mu génnaat vraiment man je suis pas d'accord bu ma man ñu euh, peine de mort dañ ko fi andi parce que Sénégal c'est trop li ñuy rey dafa bari da ngay gis benn mois dañ fi rey plus de trente personnes yoo xam ne rey ñaaw rey yoo xam ne duñ ko rey sa xar mun lu metti nag kon war nañ ci jóg bu baax a baax may lance président Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko li ñu war a a saytu essence yi nii bàyyi lépp ñu saytu li nga xam ne mooy ndaw ñi ak rey bi ñu xool nan la ñuy lijjantee ñi nga xam ne ñooy rey rey seen biir tuumal ci mbir mi ndax moom kat ko jege woon Abdou Aziz Dabala la mais gisoon sànq ci benn statut kenn ku jege moom muy def ni mi ngi wax ne alhamdulilah ba lépp leer na mu mel ne ko léegi yoon sakal la ki nga xamante ne moom mooy Nabou Leye waaw man du ma ne Nabou dafa taq du ma ne Nabou Leye na ko parce que yoon jàppagum na lañ wax parce que dañuy jàppagum na kenn comprendre nga te bu ñu xoolee image yooyu yëpp dañ ne Abdou Aziz kenn réyu ko comprendre nga man du ma ne Nabou Leye dafa set du ma ne set na man yoon lay bàyyi mu def liggéeyam yoon jàpp na kenn daal yoon ki mu jàpp piste boobu la jaar ba képp koo xam ne laale nga ci rek incha allah wala tax nga ci yoon dina la teg loxo mais kii set naa kii man xaw ma ko yoon moo ko xam yoon mooy setal mais li may wax daal en tout cas yoon mooy setal te yoon na liggéeyal te li mu remercier nag bépp police Sénégal vraiment mën nañ seen liggéey te def nañ liggéey parce que di fi ba koor ñu def ñu def fara jëbbal ko seen borom ñu dem suuli ko laa xam ne police dina def liggéeyam te na jàpp parce que xam na ki rey mais day def nank-nank parce que am na fi muy jaar mais en tout cas daal sant naa police Sénégal gendarmerie képp kuy takk der sant nañ la parce que seen liggéey motal nañ ko ba mot parce que Abdou Aziz man buñ ki ko rey buñ ko jàppaloon wala feeñ rek man dinaa am moom trop man parce que xam naa kan mooy Abdou Aziz parce que dama àdduna ak moom mu dëkk Thiaroye Azur ma dëkkoon Sika Mbaaw muy xale bu yaru xale bu am diine li ma wax ni man ak sama bàmmeel ah, dañoo toog dañu doon toog muy xale bu am diine xale boo xam ne doone sax ci showbiz la nekk day fecc ay kilibam ñu fay ko mu ñëw toogaat def ay théâtre am doo ko dégg ci lenn lenn showbiz kon tey Abdou Aziz bu ñu ko boomee nii ñun dañuy metti ba ci kanam yàlla mais daal li ñuy wax daal en tout cas yoon na def liggéeyam incha allah ci kattan yàlla. bi daal su ko defee dafa mel ne koo xam na da ko ñaan paasu màggal a xool bu baax ñan ngeen di àndal waaw loolu am na solo day tey man euh, loolu tar na tey dinaa jël sama matuwaay. tey tey la tey yëf laay def en ma ne da nga da nga da nga changé wala leen parce que nit yi alalam nga koy ñaan su la mayul amoo droit sif ko su la mayul amoo droit ne ko da nga may ma noonu la demee xaw ma mais en tout cas bu dee noonu la demee moom yoon daf koy daan man su ma sañoon sax yoon daf koy jàpp ba pare ñu wote moom ñu def ko comme ni mu def Abdou de mort parce que ni mu def Abdou Aziz buñ ko deful ëllëg keneen dina ko def keneen. tu dina ko def keneen man su ma sañoon peine de mort ci booy bii lañ koy commencé ci kii lañ koy commencé ki rey ñi rey Abdou Aziz Mouhamed Amin Diawo moo xam ma sañoon foofu lañ koy commencé ci moom peine de mort bi incha allah parce que métti na métti waaw xam nga sant moom dëkkul fenn sant moom dëkkul fenn vraiment sant moom du ma ay jëkku Sénégal ak yooyu ma ko waxee damay ger yeneen réew yi parce que ñun ñëpp benn lañ euh, peut-être beneen réew am nañu baax Sénégal fi am nañu bon kon sant dëkkul fenn comprendre nga affaire moom sant dëkkul fenn nit ku bon la rek bon moom ci nit la rek voilà lu ci yàlla lu jógewul ci yàlla tam bon yaa koy sàkkoo sa bopp mais yàlla bindul nit pour mu bon nit nag yàlla lay bind nga juddoo fi nga war a juddoo vraiment mais aussi tam euh, kilifa yi dañ ciy dañ ciy joué lu bëree bëri euh, boo xamee amee xale mu nekk ndaw nekk tout tànk bu amee 11 ans 12 ans jàngal ko dugal ko daara dañ ñaan daara day yàq mais day defar parce que dina xam lan mooy alxuraan lan la yàlla wax ci rey nit ca ñaawteef yàlla wax rey nit kon euh, li nga xam ne moo di Euh, parent yi dañ ci joué lu bëree bëri dañuy am doom dénkaane ko am doom bàyyi ko dix ans neuf ans duñ ko gis muy fréquenté foo xam ne def ko tu ñaaw téef la den maa ko day dem ba dund loolu loolu mooy andi genre rancunier bii parce que ku nar a tiim nit jël paaka waxuma la jam rek jël paaka rend jël paaka jam plus de ak ah ndax xaalis ndax ay matériel nga nit ni mu foore doomu aadama lu mu bind yàlla lu mu bind ci àdduna mu am bakkan doomu aadama la ci gën a fonk ci àdduna nga dem def ko nii vraiment muy nekk ko xam ne lu ñaaw waaye yàlla jë moo xam lépp moo mën lépp moo mën a leeral lépp leeral na ko. waaye nee na fukki paak ak ñaar la ko la ko fukki jant ak ñaar la ko def ba mu dee benn ndax tamit bakku euh, nit pour nga daal ko yomb mu bëggoon na mu dee benn balaa muy balaa muy dem est-ce boobu jël nit di ko fukki paak ak ñaar. kan moo wax da ko jam fukki paak ak ñaar. ci information yi. ah ok loolu waaw mooy li ma wax rek mooy kooku nekkatul maanaam yoratul xolu sax julit xolu julit yoolul ko parce que boo yore julit wala waxuma la benn jam-jam mais nit sax doo ko dóor kuu man ñaan naa nit dóor kuu man barke Serigne Saliou kooku nekk julit kooku maanaam dañ koo war a raafal ci julit barke Serigne Saliou dañ ko war a raafal ci julit man nee naa la peine de mort bi ci moom lañ ko war a commencé tey peine de mort bi ci booy bii nga xam ne ñi ñi faat Abdou Aziz Dabala ci lañ ko a commencé nañ ko téye essence yi ko ñu woote peine ko njëkk ko def ci moom moom parce que kii lim dafa ñaaw vraiment ku mu ku mu ku la waxuma la Sénégal xam nga dañu Sénégal mais reyu Abdou Aziz dafa metti adduna nit ku ñuul nit ku weex ñëpp a ciy wax parce que dafa ñaaw day dem ba après suñu dëkk bi day du am sécurité day dem ba après tourisme yi dootuñ nangoo ñëw ci réew mi day jël ay appartement fii di jël ay hôtel il se kon nag li ci war a jóg mooy kan nguur gi ñoo ci war a jóg parce que nañ dem ba après tourisme yi dootuñ nangoo ñëw Sénégal dañ naan Sénégal hôtel waxuma la appartement hôtel sax doo fa nangoo parce que dañ lay rey il se comprendre kon li ci war a mooy kan le président Diomaye premier ministre Ousmane Sonko ñoo nekk ci réew mi ñoo yor ndaw ñi ñoo yor li nga xam ne mooy tourisme bi kon nañu dimbale rey dafa bëri Sénégal rey an atay li nga Sénégal déggoo ko benn réew kon le président Diomaye laay lancé message mu jóg ci du benn kilifa diine moo jog moom moo yor réew mi moom mooy lancé message peine de mort ku fi rey nit ñu rey la ku fi jam nit paaka te déewul sax ñu jam la ko jam il se comprendre bu kenn du jam nit kenn du rey nit ku fi nit tooñ mënoo koo muñal nga dem police porte plainte lool mooy yoon parce que yoon mooy atte mais doo atteel sa bopp kon Ousmane Sonko président Diomaye laay lancé message ñu jóg ci li nga xam ne lii lu yàggee réew mi dina yàqu Sénégal dina yàqu kenn dootu mën a aar sa alal dafa metti vraiment voilà jërë ngeen jëf